noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak ku mucc moom ak am ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddina tukki mbokk yi noo ngi nii di seentu yaari xew-xew yaari xew-xew yooyu lislaam da leen a jagoo te ñooy aj ak tabaski aj moom farata la ci képp ku sarti yi tax mu war daje ci moom te ponk la ci ponki lislaam yi moo tax kon ku mu war ci moom te defu ko lislaamam du mat moog julli ak woor weeru koor ak joxe asaka rek atte tabaski nag mooy ñaareelu ci feeti lislaam yi lislaam ñaari feet la am muy kori ak tëbëski ñaari xexoo yooyu ne kon buñ bu ñu dëgmalee dana baax nu nafaraat leen ba man leen a defe ni mu ware ni ñu ko sàkkoo ci noonu ku bëgg a aji mbokk yi la mu war a njëkk a def mooy sellal yéeneem yene aji ngir yalla rek wutub yobbalit te yobbal bi ko yalla wax ci aj nak dana yobbal ba ca gën mooy ragal yalla wattu yalla sàmm yalla wattu yalla ragal yalla sàmm yalla ku ko bëgg a def yóbbal mooy rek bu xasee yéene aj rek mu tàmbalee foofa ba ba muy dem bay ñëw di ci moytu jépp wax ak jépp jëf joo xam ne doonut lu ñu gërëm jépp wax ju ñu gërëmul ak jépp jëf ju ñu gërëmul moom moytu ko li tàmbalee fi muy waaje ba ba muy dem bay del si loolu moo koy mën a may mu am aj gu nangu aj gu ñu nangu te am aj gu ñu nangu mooy tax mu amee ca pay gi yàlla dige ci aj te mooy jéggal ko ay bàkkaaram tàbbal ko àjjana yàlla ma wax ci alquran ne ku fas yéenee aji na moytoo wax moytoo def itam lépp loo xam ne ab safaan la te na ngeen wut yóbbalit bu ngeen di aji te yóbbal bi gën nag mooy moytu yàlla wattu yàlla sàmm yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ne ku aji ngir yàlla defu fa lu mërta def waxu fa lu mërta wax ku def noonu buy dellu day set ci bàkkaar ba mel ne ba muy door judd ba muy door judd ni mu setewan ci bàkkaar bu ajee ci anam gi it bu delloon noona lay sete ci bàkkaar bu waxaat moom yonente bi salallahu alayhi waalihi wa sallam ne ku umra umrawaat waat diggante ñaari umra yi lu ci def ci bàkkaar yu ndaw yàlla da ko koy jéggal waaye wax nag ne aj guñ nangu moom ajjana rekk mooy ak payam aj guñ nangu nag mooy aj gu aj gu jaar yoon rek loolu moo aju ci aj li aju ci tabaski nag nee nañ feet la mooy ñaareelu feet ci feeti jullit ñi waaye dañuy xam ne nag ci lislaam moom feet dañu ci boole mbëgte ak yaatal yaatal sunu yaatalal sunu njaboot waaye nag day ànd ak yàlla itam ko du doon kese rek waaye mbégte lay doon mu ànd ak jaamu yàlla yaari feet yëpp noonu la deme lu ci nekk mbëgte ma nga ca waaye nag jaamu yàlla itam ma nga ca jaamu yàlla bu dee koor mooy julli gi bu dee tabaski mooy julli gi waaye mooy itam tabaski miñ ciy rend loolu lépp ci jaamu yàlla gi day dugg julli gi niñ koy defee moom xamees na ko tabaski mi nag muy rendi tabaski sunna la mooy lu ñu digle la digle sax gu dëgër waaye taxul mu àgg ci farat yonent bi digle na ko mooy sàkku na ku ko man def ko ci anam bu dëgër la ko sàkkoo waaye taxut nag mu àgg ci di farata farata mooy lool ku ko defut moom te man ko day am sun na nag ku ko defut te mënu ko te man ko it du tax mu am bàkkaar waaye nag xañ na boppam ab yool xañ na boppam tuyaaba kiñ kiñ ko sàkku ci moom it mooy ku nekk muskàllaf te man ko ku nekk muskàllaf te man ko sàkku nañ ci moom mu def ko waaye genn kërit bu boroom kër gi ren dem tëbaskeem mën na cee yéene waaleel ñi ci des du jar kenn ku nekk di rendil boppam buñ ko defee wàññiwut dara waaye buñ ko def bu boroom kër gi rendee moom rek yéene ci ñëpp itam dana mën a yóbbaale ñëpp jamono yorente bi noonu lañu daan def sahaaba yi noonu lañ daan def borom kër gi mooy rendi yéene waale waa kër gi am na kenn ci ñoom ginnaaw bi fi yonte bi jógee moom it xam naa mu tukki ñoom ñu ci bari bi fi yonte bi jógee dañoo dañoo tasaaroo dem ci yeneen dëkk ak yeneen réew am ku ma sa ñëwaat nag ñu koy laaj tëbës gi nu mu demee woon jamono yonente bi mu ne borom kër daal moo daan ren di yéene waale ci ak njabootam waaye léegi nag dem na ba mel ba mel nii ngeen ko gise <laughs> nii ngeen ko gise dafa mel da caa jublu woon ba puukareewu dugg ci noonu sax la ko waxee dem nañ ba ñi di ci puukareewu ba mu àgg fii mu àgg tey xam naa mu ngi ci jublu ba genn kër lu mat fukki xar walla lu ko jege ñu ko fay rendi te borom kër gi rendi woon rek mu doy li ñuy tëbëskee nag moom it dafa am ay sart mooy day doon benn muy xar moo ci gën la ca topp mooy bëy la ca topp mooy nag la ca topp mooy giléem noonu lañ gënantee luñ ciy tabaskee lu nekk it day doon lu mucc lu mucc ayib lu mucc ayib du am ayib ju fés du am laago du am jàngoro ju ju yooyu la ñu war a sàmmanteel ci wàllu tëbaski waaye nag boole ci moom itam sellal yéene ni ñu ko waxee woon ci aj tëbaski it ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla gu man di doon lii tax yàlla nangu ko mooy ki koy def sellal ci yéeneem mooy def ko ngir yàlla rek alquran bi muy tudd li ñuy rendi ngir jaamoo ko yàlla te mujj ga dafa wax ne nag yàlla nag yàpp yi walla deret ji du àgg ci moom soxlawu ko waaye lim soxla mooy sàmm gi ngeen koy sàmm wattu gi ngeen koy wattu ak ragal gi ngeen koy ragal donc ñaan yàlla mu defal ñu yiw àddina ak àllaaxira mu nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbi nu bunt yiw yi soob nu ci ak njub mottali sunuy mébét meenu fanu gudd ak wér ak muñ gu rafet え